bi saf na kii away ah attention Jackson daanu di leen sargal waaye tamit eh, di leen li yéen ñi nga xam ne rek yéen a safoo Equivox TV nee naa leen yéen à chaque fois rek eh, mbégte lay doon ak bànneex rek di leen jox li ngeen xam ne moom ngeen soxla maanaam li ngeen ñuy laaj eh, muy journal bi nga xam ne dañ leen koy dëdmal tous les jours muy journal de l'arène waaye tout le temps rek maa ngi ciy ànd ak sama góor gi di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Ami maa ngi lay fay naka nga fanaanoo. waaw sant nañu yàlla bu baax yaa ngi ci jàmm. <coughs> waaw am naa jàmm la solal nag. tey waaw ah. la sol nga waaye bien sûr waaw Lacoste Equivox macha <laughs> yàlla rek julli ci nant bi nuyu ñu ñuy suivre ñëpp fu ñu maa nekk rek di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk. amiin waaw. voilà kon bu baaxee rek ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat Ah ah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 4 février 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag moom tey ki mu xëy séqal waxtaan moom moo di guy gi nag daal tey moo xëy ngar daajoo suñu lamb wax falu yaatoo yaatu yaatu ci li nga xam ne ni nar na koo jëflante ak rëg-rëg waxtaan woon nag Abdoulaye Dembélé la ko séqal guy gi nag moom ay fansam wala ay supporteram la xëy di dalal seen xel la mu leen xamal daal mooy na seen xel daal ci moom ndax li mu fas yéenee def rëg-rëg lenn dong la maanaam duma ko duma yu metti te itam nag yëkkati ko ba ca kaw dóor ko ci suuf lii daal mooy ay waxam nee na itam moom guy gi li nga xam ne ni daal moom la fa yéene def mooy kii di rëg-rëg moom da fas yéene yóbbu àlisir maanaam sonal ko ba dootul mën a noyyi mu door koo daan te itam nag nee na seen diggante amul lenn lu mu ciy calcul li mu wax nii daal buñ ca yeggee loolu la fa yéene defante ak moom mu ngay ñaanal rëg-rëg tamit bépp combat MMA boo xam ne nii engagé wu na ci na ko gagné waaye na maag moom moom du yombe noonu duma ko daan ko daal laay def guy gi daal tey moo xëy tey Cheikh ak Abdoulaye Dembélé waxtaan wu yaatoo yaatu demam nga ci États-Unis tamit ñëw na ci ak la nga xam ne nii moom la ko moo get defal maanaam daal may na ko li nga xam ne nii moom mooy oto ak xaalis bu baree baree baree bari la guy gi tey xëy di ko wax beneen combat boo xam ne xaalis bu bari dem na ci di cent dix millions muy diggante Tapha Tine ak Boy Niang numéro deux moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal choc de titan boobu daal soo bëggee dégg dëgg moom la ca dem bëri keneen koo xam ne ni moom ba mu nekkee ci làmb ji ak léegi tey la ci am la nga xam ne ni moom mooy fukki at ak juróom muy le roi des arènes Modou Lo yëglikaay wax nu ko maanaam la 4 février 2006 la commencé woon ak carrière am tey ñu ngi février 2021 yëglikaay bi xëy na ma ko ci fukki at ak juróom moom sunu làmb keneen koo xam ne nii moom làmb ji maanaam ëllëg bëgg na cee nekkub dirigeant muy ka nga xam ne ni moom moo di góor gi étudiant di ëmbër nekk fa nga xam moom moo di ca tëngéej yëglikaay bi xëy na tey tamit dalal ko ba tey sunu làmb xëy na tey sampab laaj ci li nga xam ne nii moom mooy làmb ji mu ne ci diggante wala boog ñan ñoo bëgg a rey làmb ji xëy ñu wan Matar Ba ak Bira Sène ministre des ba ak bi na kan moo bëgg a rey làmb ji ndax nee mu ngi gën a am place fi nga xam ne moom moo di ci làmb ji wala Sénégal ñu ne déet ne waaye yenn mu nekk nii fa ñu daw moom moo di Gambie fa lañ yaakaar ne daal fa lañ mën a sauver moo tax sunu làmb xëy tey jàpp di laaj ne kan moo bëgg a tey la nga xam ne moom moo di làmbi réew mi ba tey bu nu continuer wala ñu jóge fa dem record record moom que mu xëy tey seqal waxtaan moom mooy Mame Kor Faye di président CRC bu Kaolack li mu wax daal ne ci boo bëggee dégg dëgg développer sport bi daal fi mu nekk nii moo leen tax a jóg rawatina nag sport à lekkool moom daal tey moom itam seq na waxtaan wu yaatu ak ka nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di Abou ci journal suñu làmb liñ xëyee ak ñun Babacar tey euh, muy kii di guy gi moom daal nee na xam leen xam leneen na bu jàppee ki nga xam ne moo di rëg-rëg dina ko bastonné maanaam dina ko caawa caawa caawa ba pare doo ko yóbbu teer ah loolu da xëy wax tey ci waxtaan mu Cheikh Abdoulaye Dembélé mu mel ni mu ngi dalal supporter xelu ay ñi koy sopp ay supporter am mhm. parce que jàpp na ne moom duma ko ba pare door ko daan lay def mhm. waaw yaa ngi dégg loolu nag comme li ma la wax la rek làmb moom wàllu teen la ku ñëw ci pindi ba nga yem bi ci des mooy làmb balaa commencé di nga gis bataille da la ku gëmit moo ko indi tey fi mu nekk ci wàllum làmb waaye tamit da ko xale boo xam ne itam yaakaar naa itam ku gëm boppam la lool kon defe naa daal ñoom ñaar yàlla nañ ko fekk te tal ko mais ku assisté ki bés boobu daal fekk ko incha allah rabbi da nga gis bés bu doye doye ndax ñaari mbir lañ yoo xam ne nii kenn du ci fooy làmb te mooy dëgg waaw xam naa ne de gëm sa bopp rek la de te gis nga nag nappante bi ñii nappante mhm. ku ci amul fit rek sa fit bu demee bu bës baa moom kay boo tiitee daanu <laughs> làmb moom boo tiitee moom booy ñëw mën daalil sa fit waaye boo ñëwalul fit moom daan la day yomb waaw ah, guy gi nag tey moom defe naa ne wax na lu yaatoo yaatu ci journal bi muy mbër moo xam ne daal itam mhm. ah combat bi parce que la plupart ci ñi am na ñoom boo leen laajee dañ naan na rëg-rëg moo mën guy gi mhm. xam naa nag loolu moo tax tey mu di leen dànkaaf waaw te itam ah c'est normal ah te muy dëgg mm-hmm. assuré ay fansam ñu daal di ñëw ak ñu euh, ci ñoom 110 euh, millions yi nga xam ne rek moom lañ ñu tegal Tapha ak Boy Niang muy combat bu boo xam ne nag combat bu rëy la vraiment. bien sûr combat bu mag la combat jànq la combat bu Sénégal yi bëggoon doon. combat lan la jànq. waaw combat jànq la mooy lu masta am. dëgg amee moom lañuy ñuy tuddee combat jànq. parce que combat la boo xam ne Sénégal yi bëggoon nañ ko yàlla dogal Leewtoo production taxawal ko. Mm-hmm. combat bu toll ci valeur comme ni ko sunu lamb waxee cent dix millions muy combat bu mag a mag. Mm-hmm. boobu tamit xam naa bu ñu sa yeggee ah da gis bés bu rëy a rëy ci diggante ñaar ñooñu. Mm-hmm. d' accord ñu daal di ñëw ci ki nga xam ne rek moo di euh, góor gi. Euh, di étudiant góor gi étudiant waaw moom nag nee na fi mm-hmm. nekk nii daal moom dafa bëgg nekk dirigeant de lutte. waaw loolu day mën na mën a ne parce que mbër la mi nga xam ne euh, étudiant la intellectuel la macha mu ngi def ay kii am ay études am ak kon defe naa ëllëg war na mën a nekk. benn dirigeant ci lamb wala sax pourquoi pas feneen mm-hmm. parce que góor gi étudiant moom waa ci lamb la bokk quoi. dëgg la waaye bëri na ay ay combat daan na fi bay nekk. bien sûr bien sûr bëri na fi combat bi mu bëri combat bu méttee méttee. dafa mujj daan mbër la de. Ah, kon baax na mbër la kay. waaye ba tey rek ñu ñëw ki nga xam ne moo di euh, roi des arènes di Modou Lo. fi mu nekk nii def na 15 ans ci biir arène bi. macha allah waaw mu koy féete. le 4 février lu duggoon 2006 tey le février. ah muy loo xam ne daal macha allah parce que yaakaar naa ne boobaak tey boo ko calculé mu ngi toll fukki at ak juróom. Mhm. muy ñàkkante di ñàkkante ba tey mu nekk roi des arènes. ak ah, kon dama naan wax dëgg yàlla wane ay preuve la mu bëggoon itam yegg na ca au sommet parce que ku ci takk ngem di bëri bëgg nga bëllëg nga nekk roi des arènes. Mhm. kon yaakaar naa daal 15 ans bi wax dëgg yàlla mbégte parce que itam euh, sport la boo xam ne yombul ku ci nekk ñàkkante ak Modou Lo ni mu mel. Mm-hmm. defe naa ne loolu moo lay wan liggéey na bu baax a baax ci biir carrière arène bi nga xam ne tijjeegul ba léegi ñenn ñi jël di jël seen i combat di ko yóbbu Gambie ba pare waat ci MMA bi nekk loo xam ne dina rey li nga xam ne moo di làmb sénégalais. Ah, bu continuer nii parce que lii moom bu continuer mbër yi déjà wu nañ ci MMA bi bi ci des mooy MMA bi actuellement communication bu bare bare bare gagné na ko ci dëkk bi ñu ne déet waay yéen pour dem Gambie loolu nag su continuer moom ah dina doy waar parce que itam nag ba fi ñu koy waxee ak yow nii amagul benn solution boo xam ne jël nañ ko pour làmb ji ne fii lay aw wala fële lay aw fii ci Sénégal xam naa moo tax nag MMA bi di gën di dugg ñeneen ñi di des ci ay promoteur di seet nu ñuy def wan yoon la ñuy aw ñoom pour mën a dem Gambie tëgg seen ay journée waaye lambu Sénégal lu ko rey yombul de Babacar. waaw lu ko foo xam ne nag vraiment moom. waaw euh, ma ne lu ko daaneel dina dina. non loolu moom am na lu ko rey moom du lu yomb parce que loolu moom xam naa ne yombul lu jafe-jafe lay doon waaye tamit nag bu fekkente ne itam ah taxaw bi ñu ci war a taxaw defuñu ko tamit ah bu yàggee dina bu deewul itam mm. dana sonn lool wala mu sooxe. kon nag dèjà lii xëy na taxawaay bi leen na ko waral ñëpp xam nañ ko mooy euh, coronavirus moom moo taxawal xëy na làmb ji mais bon ak xëy na mesure bari rek li décision yi ñu war a jël d'ici quelque temps xëy na mën a tax làmb ji commencé waat fii Sénégal di rek xanaa feebar moo waaw moo waaw moo jarañ baax a baax te làmb itam suñu cosaan la nag ak réew mu mën a nekk ak fu ñu ko mën a yóbbu itam dafa naa Sénégal gi la cosaanoo te muy dëgg euh, ñu daal dem rek ci journal record fekk fa ki nga xam ne rek moo di Mame Kor Faye nekk actuel président CRG bu Kaolack moom daal xam leen na fi nekk nii dañoo war a développer li nga xam ne mooy sport ci biir école yi waaw ñoo ànd sport ak étude mm-hmm, naa ñoom ñaar a ànda ah. kon defe naa ne loolu moom du mën a def loolu lam ci bëgg yàlla na ko réussir en tant que président euh, nouveau président fa nga xam ne moom mooy ca Kaolack jiite làmb ji mm-hmm. ah, euh, a am te ubbi xel te itam élève baax na ci moom muy pratique sport ndax sport ak étude la ñu wax. waaw ah, xam nga nag suñuy jamono ñun EPS bi ñu doon def EPS benn yoon la doon doon ci semaine bi. xam nga loolu doyul tamit nag. moom. loolu yoon ci une semaine non loolu moom xëy na ak jamono ji nekk nii dañ ko gën a yaatal. pour temps bi gën a bëri quoi parce que sport tamit daa nekk lu baax. Mm-hmm. xuma ni muy ubbee xel mais wér gi yaram gi mu lay jox rek dèjà ak kenn amuñu jëgam quoi. Uh-huh. Babacar fa la eh, xibaar yi jàll yi ndar keppee looy tàggatoo. waa xanaa santaat rek. waaw ah, moom da ngaa xawal loo. waa tey waa àddina mel noonu des fois nga. ñëw mooy loolu des fois doo ah, mooy loolu addi nit a mel noonu quoi. est waa ndékkeegu ma nag mais bon loolu lépp dara xam naa mais. mais man day ngomeen yi dañ may summi. ngomeen <laughs> ah, kon kon man na mais loolu si a dégg daal di la ah. di kontaane ñuy suivre fu ñu mën ne. nuyu koo xam ne suma xarit la suma mag la sama kilifa la. Mhm. muy la maire de Latmingué docteur Macoumba Diouf maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu soxnaam mhm. madame Diouf Liou Senghor ak njabootam gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu wàllat mbéngay parce que li tax mooy nit ki moom bu la jàppee te yàlla tax te di kilifa li nga a def mooy di ko jaajëfal saa su ne ndax bu ko neexoon du ko ci fekk kon tey daal docteur Macoumba Diouf maire Lat Mbengue directeur horticulture moom lay ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp doomu aadama di la nuyu ami di nuyu gomis bi newoon si caméra bi yàgg maar si montage bi di nuyu groupe Equivox yëpp madame Diouf ah ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu xulle ah Abdou ñëpp daal képp ku fi nekk daal ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko sàkku si yow mm-hmm. waaye tamit di jaajëfal ñi nga xam ne ñooñu doon a seetaan di leen wax ne rek fii la ñuy daal di yem ak yéen ci xibaar yi di leen dox dig daje ëllëg incha allah